yëkkati na xel tey na ñaaw na turbine yéen kaay naan mante teeyul ci kenn ku dul ci conseil constitutionnel yéen kaay bi dee média bi naan koy jori xeer di ko ŋàññ moom conseil ba mu média bi naan man gaay yi di ko joree xeer fu ne bi moom waa parti démocratique sénégalais ñoo faf ne nan ko seel fayallaahu ndax ñoom waa PDS si boppam ne nañu conseil constitutionnel bi le dafa daal di tële garantir élection boo xam ne dina am ci wàllu démocratie am ci leeraange goo xam ni kenn du ci am xel wu teey naan maan ñoom waa PDS ci boppam nee ñu fas nañu yéene defub recours ca cour de justice bu CEDEAO Walf Quotidien naan koon ma wax wala ma noppi critique yéene kaay naan koon coalition Karim 2024 résistance nag la ñu woote faf le thème mooy yéene kaay ci njàngatam mel ni ku naan ñoo yey de ndax nag maître Abdoulaye Wade ci boppam la ñu jël paaka jamee ko ci ginnaaw ñaar bi yoon mu am ci réew mi tëj nañ doomam xañ doomam ñaari yoon présidentiel l'observateur naan koon moo taxit njàngat ka Karim Wade ma ni la lu war la ñaari présidentiel nga daal koy rate te kurpeñ gi dal na xam ne jaxasoo mën na caa am te it mën na ko faat ci wàllu politique fa yàllaahu libéraux yi naan militant yi man génn leen ngeen xeex wane leen seen doole xañ gii ñu ñu xañ suñu bokk ci présidentielle yi génn leen ngeen xeex ko turbine quotidien naan kon gars yi daal ña nga fas yéene kalaame ji nguuru président Macky Sall ak conseil constitutionnel ca CEDEAO Walf Quotidien naan kon xanaa ma wax rek waaye e sam xel la jàpp ne cour de justice bu CEDEAO bii mën naa dugalaat Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle 2024 yi budul woowee sa xel lan la ana ñu ko fi defoon kalaame ji fu mu mujjee fenn Sud Quotidien naan en tout cas coalition Karim 2024 ña nga naan élection du am ci réewum Sénégal tant ñu rigaatuñu turu Karim Meïssa Wade ci liste ji ñu war a bokk le point ak ci naan maan lii lépp cellu président Macky Sall moo ko waral Bougane Gueye Dany woote na fi mobilisation Mimi Touré Karim Meïssa Wade te lépp nag naji adversaire moo ko waral gars yi jàpp ne bu Karim bokkoon Amadou Ba moom daanaka du gis dara lanket naan man aayee Karim gii soo moytuwul nag kenn ci daal di jariñu moom moo di Idrissa Idrissa Seck l'info naan koon ñi ngi takki alliance fu ne booloo gi ci wàllu présidentiel bi mel ni tulleeg màlle ku ne di xool koy lonku sa mbagg waxante guddi yaa ngi mel ni tulleeg màlle waaye Aly Ngouille Ndiaye du am Boun Abdallah Dionne du am Mame Boye Diao du am Idrissa Seck du am l'info yéene kaay ne kan mooy bokk ci opposition bi di ànd ak ñoom di xaru fa yàlla critique yéene kaay naan kon en tout cas Bougane Gueye Dany day gaayaa koy woowe fu ne ku ne nag mi ngi bëgg fi mu ne daal di jël sa mbagg lonkoo Ousmane Sonko it ma ngay xool kan moo yor projet bi gën mu daal di moom le quotidien le kon en ñetti candidat la am ci élection présidentielle bi gars yi Sonko yi nag mooy ci Bassirou Diomaye Faye Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye ne xooluñu la Pastef bëgg la ñu xool kay moom moo di profil bi gën ñu xool ko mënuñoo xëy rek ne kii la ñu àndal nañu xool ki am programme ak profil bi gën ñu daal di koy songandoo bés bi le jour daal dina Ousmane Sonko mi ngi ci guddi bër setagul mi ngi xalaat kan lay lonko akub àndam wala kos am ndaje boo xam ne tàngoon téeméer ci kër Habib Sy moom Cheikh Tidiane Dièye ne candidature am bii du ko dindi tey du ko dindi ëllëg Birame Souleye Diop naan kon bu la neexee de waaye defal sa bopp ne sunub candidat ñun waa Pastef Bassirou Diomaye Faye la moom Ousmane Sonko teey ànduk dal di xool nag ci profil rëkkale yi kan moo ca gën yor yor yéene kaay naan maan ak lu mën am projet Pastef bi moom moom Bassirou Diomaye Faye moo ko boot lakos naan Bassirou moo yor suñu programme mooy suñu góor mooy suñu waay moom la ñu samp bés bi le jour naan kon Habib si teg si naan nañu xool meilleur profil ñu jël ko moom it bawul le point actu naan man coowa nga ca candidature Bassirou Diomaye fayde de ndax bés buñ ko falee président bu réewum Sénégal moom Bassirou Diomaye fay boo moytuwul nguur gi da koy sédd Amadou Mame Diop ndax nag juge bi ci boppam mën naa yëraat dossier am xool ndax Bassirou jomaay Faye dañ koy wekku nguur gi wala dañuy amalaat ci juróom-ñeent fukki fan yi ko jiitu yeneeni élection présidentielle en attendant jébbal nguur gi njiital assemblée nationale yéene bi mel ni ku naan man cey sàll ngaari lam tooro Bourguédé ak lu mën naam turbine yéen a kaay ne ma ay gaayam moom nee ñu ka mu àndal la ñu àndal ka mu joxoñ la ñu joxoñ ci présidentielle 2024 bi Semi Diouf taxawal na mouvement mon visa yéen a kaay bi ne sabab gi moom moo di dooleel Amadou Ba waaye tam wane ay jëfik président Macky Sall Sud Quotidien naan kon Sall ngaari lam tooro burgede sa réew mi day bitim réew nee ñu baaxul neexul amul jàmm ñi ngi caxat-caxatee ak ak yelleefuk doomu aadama saa booy élection jub see yow président Macky Sall fitna daal di juddu sam réew Human Rights Watch daal di defal rapport 2023 Sénégal goo xam ni maar day taali yéene kaay bi naan maan bu dee Seydi Gassama ma nga naan am na yu baax ak yu bon ci réew mi 24 heures yéene kaay naan kon 2021 ak tey moom Human Rights Watch nee ñu Sénégal ñi ngi caxat-caxatee askan wi jaarale ko ci ay procédure judiciaire yoo xam ne ña ngi ko njëkk a teg ci ndodduk opposant bii di Ousmane Sonko ci loo xam ne nag seenu doomu réew lañ koy teg mu miti wala gaaye naan président Macky Sall yow ci boppam yaa war a njëkk garantir liberté sak askan daal di tere fitna gi nga xam ne am na ci réew mi caxat-caxatee gi ni caxat-caxatee askan wi rawatina di leen yóbbu kaso ci anam woo xam ne maa tay la ak sama teeyaayu bakkan ci lu leen neex dong ngeen jàpp ci nit ñi di leen yóbbu ci kaso ci anam woo xam ne mitti na ñoom autorité yi waa Human Rights Watch naan leen askan wi ci boppam war ngeen saytu bàyyi leen ñu wax la nekk seen dënn ñu dem wooteel ka ñu bëgg wooteel waaye tam élection daal di am ci jàmm ak salaam ak xel mu dal le témoin yéene kaay naan kon gannaaw bi nu yàqee Sénégal moom Aïssata Tall Sall day daal na nguuru président Macky Sall moom Aïssata ma nga ca Genève réew naan kon daal di xamal communauté international bi ne ko Sénégal def na ay jéego yu am solo ci àq ak yelleefu doomu aadama waaye tam sàmm la nga xam ni moom moo di ab askanam ci juróomi at yi ñu génn moom Sénégal taxaw fa ñu ko doon xaaree ci àq ak yelleef l'observateur nan Aïssata Tall Sall ma nga naan nasaraan yi ak lu mën a am borom ñaari tur yi nag ñu bàyyi leen ñu am seenu liberté ci réewum Sénégal du am tey du am ëllëg suñu diine nangu ko suñuy valeur nangu ko kon nag borom ñaari tur mani la du sakkanee ci réew mi turbine yéen kaay naan kon booba élection présidentielle yu dul sakk kan la ñu am ci réew mi présidentielle yoo xam ne ba nii kenn amul ak kóolute dina am waaye bu amee ci yen anam lay amee ndax fichier bi nga xam ne moom la ñu jébbal ngir amal ci élection bi fichier boobee gaa yaa ngay tàmbalee nag di ci am xel wu teey njàqare daal di tàmbalee juddu ci xool yeeg xel yi ci ne ndax fichier électoral bii baax na waxtu woowu ma ne la gaa yaa ngay xool nees jëmale kanam Sénégal yéen kaayub dee média bi naan maan fees ci boppam daal dinay débloqué juróomi téeméeri million daal di koy jébbal téeméer ci ay bénéficiaires moom soxna Mbàkke daal dugal juróomi téeméeri millions yi ci fonds bu sénégalais bu extérieur yi nga xam ne ñetti téeméeri millions la jugee daal di jàll ci benn milliard lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay projet ñu daal di koy taxawal ci bitim réew financé ko lu toll ci juróom ñetti téeméeri millions ñu def ko ci jógee ci téeméer ak fukki millions ak juróom tàbbi ci juróom ñetti téeméeri millions bi yoon nag juróomi téeméeri millions jébbal nañ ko sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew te ami projet waxtu woowu ngir xeex chômage bi it yéenekaay bi di ma xamal ni ma joojo mbeng fas na ko yéene taxawal ci ndakaaru njiital mouvement la réaction jóg ngir defar Kër Massar daar daar taxawal na lu téeméer ciy xëy ci réew mi lépp nag jaarale ko ci mbay mi ak yi mën a demal seen bopp Tribune Sport naan maan waxtu woowu Sénégal mi ngi soobu ci ñetteelu match ak bu mujj bu poule bi waaye laataa loolu taskatu xibaar yu Sénégal yeeg tàmbali nañ faa jotee laas yéene kaay naan kon ñoom Sénégal kay ndam la ñu bëgg niki tey ngir am ñetti ndam ci seen ñetti match de poule Le Soleil yéene kaay naan kon ca Yakroo dina tàng dina métti tey ci déer bi diggante Sénégal ak Guinée Conakry d'Ivoire yéene kaay bi naan maan éliminé gun ko de waaye fi mu toll nii day taxaw di seetaan lu am mu jël libération yéene kaay daal di may xamal ne ca sogaas dañu faa rendi xate génn waay fajar la ko xaritam boo xam ne tuddee na ko doom gannaawoo daal di koy plaqué mu yegg suuf mu daal di tër daal di rendi yéene kaay bi naan maan borom ñeenti junni akub téléphone portable bu yàqu moo leen daal di jotale gannaaw ba mu faatee xarit bi dafa ni toccet daal di daw téléphone moo tax yéene bi ne ma ñu daal di koy jàppee ca ngee xoox ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yandoog jàmm